ñoo ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di leen ziar di leen baalu di leen masawu coon ah di nuyu kilifa yi fi teew yëpp moo xam ñi fi teew ci cadre familial moo xam ñi fi teew ci cadre politique la moo xam yéen ñi taxaw boobu ba léegi ndax yàlla am na lu mu def kon nag yéen ñépp ay kilifa ngeen maa leen di nuyu ah kàddu yi nag xaw na ma jaaxal ndax ñaar bi ci jiitu mooy ñi fi jot a jaar yaakaar naa li fi farata wax nañ ko ba pare kon nag dañuy safal rekk waaye du farata ñaareel bi mooy dañuy célébrer vingt cinq ans au pur te man bokkuma pur loolu tax sànq ñu ne ma est-ce duñ la jox écharpe ma ne ëpp naa def yéen pur ngeen bokk man kàddu góor gi laa bokk man kàddu góor gi laa bokk moo leen yitte man monarchie laa gëm ndax koo xam ne lu la wax ci bëccëg balaa ngoon nga gis lu la tegtal balaa ngaa xef mu taxaw lu la dig balaa àggal jox la ko kooku boo ko dénkee sa lépp di nga gis jàmm waaye nag ku sañ te bañ sañ te yaakaar naa loolu maak yéen séq nañ ko ah vingt cinq ans ñii naan vingt cinq ans ñii naan cinquante ans waaye lépp benn combat bi la ndax jamono dafa dox ñu ne mondialisation ñu ne village planetaire ne fépp benn la gaay ne waaw kay noonu la de waaye dafa fekk ni plan yi ak subterfuge dafa jafe déceler ndax troisième guerre mondiale bi ñuy tudd ba mu tàmbalee ay at ci ginnaaw la fi mu toll ni ñoo ngi génn phase mondialisation war a dugg ci phase démoralisation xëy na développé ko du fi xaj waaye ci gàttal dafa am ay baat ñu jël bëgg ko naxee nit ñi bi ci jiitu di diggante diversion ak divertisement dinga yaakaar ni ñaar yu baat yu bokkul la sauf dañoo militariser benn bi banaliser ba ca des waaye ñaar yëpp benn la te mooy tegal la lu la nax ba dootoo tal sa farata mooy lan seetaan nga série bi démb diw dee lim def waaye yow match bi gis nga diw action bi nangam ak nangam waaw loolu lañ bëgg ngeen wax ci waaye réew mi fii la toll lii la soxla lii mooy suñu taxawaay bëgguñu ngeen xalaat ko mukk bëgguñu ngeen xalaat ko mukk ndax boo leen ko xalaatee di xam ni ñi ngeen fi teg defaluñ leen dara dara bàyyiwu leen fi lu seen bopp ak seen poos ndax ku fi mës a toog la ngay ñëkk lijjanti ba nga toogee mooy kër goo uti extérieur nga xam ni da ngay lekk li ngay lekk rekk daw nga xam ni ñooñu le peuple sénégalais bàyyiwu lañ leen fi bi ci des dañ leen di jaawaleloo liberté ak libertinage lan mooy libertinage lu ma neex def je suis libre dara waruma cee fekk loolu mooy libertinage liberté d'accord lu la neex def waaye conséquence bu ca am yaay gàddu kon nag balaa ngaa wax xool la ca fekk balaa ngaa jëf xool la ca fekk balaa ngaa attaqué kenn xam lu la ca fekk yu mel noonu yu mel noonu la ñuy jël di leen ko fooye di leen ko fooye ba dugg ci biir kër yi fexe ba góor talatul nekk góor fexe ba jigéen talatul lu dul wujjin fexe ba xale talatul lu dul ay caaxaan lii mooy troisième guerre mondiale bataay bii la góor gi di xeex ay at ci ginnaaw lii mooy combat moo tax nag il faut faire attention dal xel teel te wax dëgg neex yàlla xaju fi moo tax suñu mbokk waay yeewu askan wi dañ leen di encourager dëgg la ndax nag les choses ne fonk que commencer ku yaakaar ni tàng na léegi gisagoo li ci kanam ku yaakaar ni caay-caay gi génn na gisagoo li ci kanam waaye nag sutura yàlla ak barke kilifa leneen nekk leneen nekk dañ koy waxtaan mag sama mbokk Pape Cheikh bi ci sëñ Ousmane bi bis bu nekk mun naa maan li ko gaay di def li ko gaay di def ma ne ko waaw c'est très normal ma ne ko xam nga lu tax mu naa ma ne ko ñun bañ cay jaar kañ la moom sax moo ñu ëpp chance ndax combat am sénégalais yi teg nañ ci seen bët ndax won nañ leen ko waaye ñun bañ ñuy teg lañ ñuy teg di ko nëbb di ko di ko détourner di ko déformer di ñu sosal loolu kañ la ak ku wax moo tax taxaw rekk taxaw rek te ñeme mbir bi ndax ce n'est pas une question de personne c'est une question de population c'est une question de civilisation c'est une question d'intérêt général c'est une question de Sénégalais c'est très important moo tax ku yabu bàyyi xel yu bari ku yabu gën a taxaw ku yabu am sa conviction am sa ngëm-ngëm am sa pas-pas ak foo mënti bokk nag ndax bokk fenn moo gën taxawaal bokk fenn moo gën taxawaal ah, kàddu yi jarul guddal lii farata yépp kilifa yi wax nañ ko xëy na nag kàddu cant yu ñuy yóbbante xëy na dañ ciy dugalaale suñuy canti bopp bi ci jiitu bi di ci suñu mbokk Cheikh Yum na wax dëgg neex yàlla fu ñuy yëg ni moo nga fa suñu xel sañ a ndax xam ni graine bi suñu kilifa planté ci moom meññ na nam war a meññee yàlla na yàlla xepp dolli ah di santi di nuyu di gërëm di jàpp di ñaanal suñuy frère yi ñuy tëral te defuñu dara muy Massata Samb ak Ahmed ñi fi teew ñépp ak ñi seetaan ñépp moo xam d'accord nañ moo xam d'accorduñu moo xam gëm nañ moo xam gëmuñu ñoom fa ñu tëdd senegale yëpp lañ fa tëddal lan moo tax keneen ku mu nekkoon yow keneen ku mu nekkoon sa kilifa dinga defa action ba ñu def te kon liñ leen teg dañ la dañ la ko teg waaye comme am nañ fu ñu bokk rek ñu bëgg ko moomale leen ainsi va Sénégal waaye du lu bees ñooñu suñuy frère dëgg lañu suñuy frère ci deret lañu ndax ñoo bokk naaj suñuy frère ci conviction lañu ndax ñoo bokk lu ñu gëm suñuy frère lañ ci xol ndax suñu pas-pas moo nekk seen xol kon nag ñoo leen di sant di leen nuyu di leen gërëm